al madina travel salum jidda sen info international ak tarixa tijaniya in america si njiital suñu imam Mouhammad Muntaqa Sakho ñoo may émission bu mag bii di seen diine bismillahi arrahmani arrahim an utbata bni abdin jële nañ ci sayiduna utba doomi abd radiallahu an yal yàlla gërëm ko anna rasulallahi nekk suñu sang yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallama qaala law anna rajulan su doon benn waay yaxiru dafa rot wajihi ci kanamam sujjóot min yawmi wulida depuis bés biñ ko juree yawmi yamuutu ba ca bés ba muy dee taaw dundam yépp mu paase ko ci sujjóot fi mardatillahi te ngër mande yàlla rekk tax wutut ca ku ko gis wutut ca ku ko xam wutut ca ku ko dégg yàlla rekk la cee wut ngërëmam azza wa jalla la xaqarahu kon mu xeeb ko bu yowmal qiyaama yowmal qiyaamati bu yowmal qiyaame rawaahu ahmadu wa tabaraaniyu bi fil kabiri nee su fekkoon ne doomu aadama bi ba mu juddoo ba bi muy dee dafa paase temps boobu yëpp ci sujjootal yàlla xam nga waxut sax ci jaamu yàlla rekk waaye jaamu gi gën a foor ci jaamu yàlla yi nga xam ne bu ca jaam bi nekkee mi ngi ci position bi mu gën a jege boromam tabaraka wa taala mooy sujjoot aqrabu ma yakunu al abdu min rabbihi wa huwa sajidun ma yakun position bi nga xam ne jaam bi ci lay gën a jege li rabbihi ñeel borom wa huwa mooy bu sujjootee yàlla ne fa wasjud waqtarib sujjootal nga jege yàlla position boobu nee bu ca jaam ne woon ba dundam gi yëpp jeex te màndi yàlla rekk a tax du tee mu xeeb jëf ja du tere mu ngéeju defoon lu ëpp loolu du tere mu gis ne lim waroon a def yëpp defu ko loolu lim ñuy jàngal mooy bu ñu yem suñ bopp mukk ci jëf juñ jëf mbaa wax juñ wax mbaa melo mel ndegam su fekkoon ne suñ dund yëpp ci jaamu yàlla sujoot lañ ko paase danañ ko xeeb rawatina suñ genn wàll dund gi nga xam ne dañ koy nelaw genn wàll gi nga xam ne ñu ngi ciy wax ak suñuy xarit ñu ngi ciy foof ñu ngi ciy def luñ ca war a def pourcentage bu tuuti bi ñuy jaamu war nañ ko xeeb yokk ko xam ne buñ joxoon yàlla suñ bopp suñ dund gi yëpp du tax ñu jox ko xaqam ñëw na ci xabar ni am na malaaka yoo xam ne sama borom bam leen bindee ba léegi ñu ngi sujjoot duñ yëgati ko mukk lul ba ñuy wal buftu ba bu ñu walee buftu ba dañuy yëgati ko ànd ak tiit dal di bakk sama borom ne ko subhaanaka sell yow rekk la ñeel maa abadnaaka xaqa ibadatik dëgg dëgg jaamooñ la niñ la waroon a jaamoo kon nag mbokk yi ñu góorgóorlu bu baax góorgóorlu bu baax yal nañ yàlla dimbale ñu góorgóorlu ci suñ diine jaamu ko ci suñu biir jaamu ko ci suñ biti topp ko ci biir topp ko ci biti te ñu wëttandiku lépp lum tere rawatina nag loo xam ne mën nañoo sax génnee ji diine ji te nag ku seetlu suñu doxalin barina yu ñuy doxalee yoo xam ne bu ñu gisee la ci yonantu wax sallallahu alayhi wa seetlu ko bu baax danañ tiit lool ci suñu bopp waaye danañ tiitit ci suñ njaboot xam ngeen ne ñu ngi tollu ci li ñoo tuddee mardi gras tey jii foo dugg ci réew mi ak ci yeneen dëkk sax senegal nag moo ci raw jullit yi seen doom yi yëpp dañ leen di boole ci feet googule te feet gi jamono bi ñu toll ñu ngi ko xamee ne suñ mbokk chrétien yi suñu mbokk chrétien yi ñoo ko moom te sax cosaan la jaamukatu xërami rom yi ñoo ko moomoon ñu daan feete bu hiver bi jeexee ñu dem nag àdduna di dox ba mu jógee ci jaamukatu xërëm yooyu crétien yi adopté ko tuddee ko mardi gras nga xam ne yi ñuy tere ci koor gi ñu war jublu yëpp dañ ko cay mën a jëfandikoo ci def ay festivité ci def ay yëf yu doy waar nga xam ne moo sës ci àllarba ji nga xam ne mooy bés bi njëkk ci kooru chrétien yi muy mercredi de cendres koor googu nga xam ne quarante jours yiñ ne moom la Jésus passé ci désert bi moom lañuy ñuy ndax yooyu la walla quarante jours Moussa la wala yum ci mënta doon boo ko defee loolu mooy sës ci euh, pak yi ak jamono ji nga xam ne ci lañ wax ne ci lañ rey Jésus ba mu dekki ba yàlla euh, yëgati ko te xam ngeen ne ñu suñ diine dafa safaanook loolu seydina isa yàlla ne wa ma qataluuhu wa léegi nag loo xam ne moom c'est purement chrétien ci euh, jamono loo xam ne it ak kéeféer ak jaamu xëram moo ko sos ñun tey suñ doom yi maa ngi gis tey ay xaleel ñu leen di solal ci Mardi Gras yi ay dégagement yuy wane ne sëriñ sàngam la gis naa ci xale bu ñuy wane mu mel ni mooy sëriñ Babacar ci solin ma gis ci xale bu mel ni bu ñu wane solol ko déguisé wu comme sëriñ Muntaxa al Khalifa ma xale yu waa mu mel ni yëfi yëfu jullit yi la buñ demee ba ñu toll foofu war nañoo tiit war nañoo tiit ndax cretien yi jël adopté nañ ko def ko seen feet gannaaw bu mu nekkee yëfu bokkaalekat yi ak jaamukatu xërëm yi ñun tey jël nañ ko ñoo ko gën a bëgg chrétien yi te yonentu sallallahu alayhi wax na ne man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum ku niru niru la aw nit yaag ñoom a yem ci ñoom nga bokk te borom mbir yépp dañ ñoo tere waxuma la feete sax waaye ndokkel yeneen diine yi ci seen feet yi nga xam ne ñoom lañuy ñuy ci seen diine ndax ndokkeel leen ci pas-pas bu yàqu la ndokkeel leen ci weddi yàlla la ndokkeel leen ci lu safaanoog diine la ñun nag yematuñ ci di leen ci félicité wala di leen ci ndokkeel waaye ñoo leen cey jiitu ñoo leen ko dàq sax li ma gis euh, benn professeur fan yëlee defe naa professeur Mbaye Thiam la wax ne suñu administration ba léegi dañ ko décoloniser gut lu mu jublu ci loolu mooy France bu njëkk pour ñu yónni en français à à l'extérieur ci seen euh, territoire yi colo ñu coloniser dafa am lu ñuy tuddee euh, indemnité de naka la tuddati Euh, fàtte naa tur ba dañ leen di jox ay indemni indemnité ngir lan li ñuy tukki dem ci barab yoo xam ne euh, seeni mbokk newu fa duut biir France yooyu nag euh, taxoon na ñu leen di jox ay traitement ci seen dëkk yooyu ñuy nekk lu mel ni Sénégal wala beneen dëkk bu ñu coloniser di leen jox kër di leen jox voiture de fonction boo xam ne sax bu bu dul bu ñu paree moo leen di yóbbu di leen doxal seeni soxla jox leen ñu leen di toppatool seen biir kër ak seen lépp mu mel ni lool bi ñu amee indépendance dafa des ba léegi fan yi jamono yi ngeen dégg Macky di wax ci wàllu voiture gouvernement yeeg yu demee noonu yooyu yëpp ñu war ko dindi Euh, dégg nga suñ ko mënta dindi ba mu jeex ñu wàññi ko yemale ko ci ñi nga xam ne mënuñ ko ñàkk te ñu yemale oto yi sax waaye yenn privilège yi ci wàllu kër yeeg wàllu nangami mu mel ni colon yi ñiñ fi daan indi mu ne nag ba léegi de looloo fi nekk décoloniser wuñu euh, administration privilège yi administrateur colonia coloniaux yi doon am loolu yooyu euh, administration administration coloniale bi nga xam ne moo fi nekkoon lu mu daan am ci privilège loolu la suñu nguuru tey am te nee jaaduwut te wax na dëgg naka noonu tamit suñu feet yi feet yi yëpp ay feet colonial lañ ndax euh, colonisateur bi ñu imposé diine mu christianisme bi ñu joxee indépendance feet yi moom daf ko fee bàyyi di fi bàyyee culture ba nga xam ne koo gis ma nga foog ne eh, ka ko coloniser woon moo baax bu nit rafetee civilisé set sax ñu nii diw dafa tubaabe xoolal complexe d'infériorité boobu boo xoolee tey ci suñu calen euh, calendrier yi yëpp ay fête catholique la fête chrétienne la ci dëkk boo xam ne wax nañ ne plus de quatre vingt seize ou quatre vingt dix cent ay jullit lañu loolu nañ ci bàyyi xel fexe ba génnee ci suñ njaboot génnee ci suñ bopp waaye taxaw ngir nguur gi dindi fête yooyu le parce que dëppoowul ak suñu aada dëppoowul ak suñu cosaan dëppoowul ak suñuy pas-pas ñaan suñu borom wan ñu dëgg muy dëgg te jàppandal ñu ak toppam won ñu neen muy neen te warsagal ñu ak bañ a defam warsagal ñu ak teetam ñu ngi ci weeru rajab ñu ñaan yàlla barkeelal ñu rajab barkeelal ñu Shacbaan te yàggale ñu ci Ramadan hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-azimi amin abonné youtube ngir jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju mi ak ci bitim réew asalaamualeykum wa lii xew at mu jot muy xew-xewu lislaam moom lañ leen di fàttalil muy annuel dîner fundraising bu mag boobu nga xam ne mu ngay xewee ci Staten Island ci taxawaayu ICFA buñ ko waxee nag sunu xel yëpp def ci imam Muntaqa saako borom xam-xam bu mag bi nga xam ne tey mooy jàngal ndaw ñi di jàngal mag gi ki miin Makka ak Medinatul Munawwara nee naa la mun Muntaqa saako mooy éviter mbokki jullit yëpp ci Staten Island ci jumaa ju mag jooju nga xam ni mooy masjid al muhajirin wal ansar nee naa la mu nga nekk ca 740 Delafield Avenue ca Staten Island nee naa la masjid bu mag boobu imam Mountakha Sakho ku ne xam ko ci lislaam moo tax béréb ba dem nañ ba bëgg nag building bu bees tàq boo xam ne nii bu ñu moom la ngir lislaam bi mbokk yi diine boobu ñuy wootee muy diine fundraising nee naa la ñëwal joxe sa alal waaye ñu servi la nag nga lekk mën a déglu sa diine waaye jël la nga am def ko ci yoon yàlla Imam Mountakha Sakho bis ba si na kañ lay doon yemook samedi décembre 23 2023 ah mbokk yi nag heure ba day teel a tàmbali ban heure lay doon cinq heures bëgg na ñëpp teew ca béréb ba ndax su ko defee lañu ñu fay dajale ñu mën koo dajale daal di mën a teel a delluwaat nag ndax ku ne xam na ne certain ay leen lay xewee kon mbokk yi lu ci waay am te bëgg ko cee def te sori numéro zel bi ma lay jox 347 265 7703 loolu mooy numéro zel bi 347 265 7703 mbokk yi nee naa la bëgg nañ building boo xam ne nii tey képp koo xam ne nii tey ñëw nga wala nga bëgg a jàng sa lislaam da mën a ñëw ci béréb boobu moo tax ñuy woote fundraising boobu kon mbokk yi jël leen ngeen gaaw ñëw def seen alal ci yoonu yàlla Imam Mountakha Sakho woote na ci taxawaayu ndimbalu ICFA kon nag mbokk yi bu ko kenn tardé bis noonu woo nañ leen ci te yaakaar naa képp kuy këru diine te nekk ci cinquante états yi rawatina ci biir Amérique rawatina New York City ñu ngi woo ñëpp nag rawatina consulat ak association bépp organisation bu nekk ci dëkk bi bul tardé bis boobu le 23 décembre fii ci Staten Island